fonk ko loolu mbaax mbaax rek na xar sax boo ko amee fonk ko boo ko nag boo amee nii fonk ko ak mbaax rek la te du wàññi ci daara yi kenn te wax dëgg yàlla moom di ko jiw lool duñu kenn mu gotti ko du kenn du ma ko ak boole nit yi ak jiw rek kon nag ñu koy sant bu baax a baax wax mm-hmm. daa ñu lay sant bu baax mm-hmm. yeneen ca kon fu sëriñ ne mm-hmm. mel noonu te loolu yi borom taarix bi loolu rek ah, waa dama waxoo il muxaataati baynaka wa bayna jamil xalqi wala siyama ixwaanuka fi tariqati ci sart yi la bokk ah, waaye ku la neex xas ku la neex gotti ah wax dëgg yàlla day te borom taarix bi di di yal na yàlla yokk suñu yokk sa ñu toll daal xamal ni ñu ngi lay sant duñ ko téye ndax xam naa yaram bi ñii xamuñ soon xamuñ woon sax fu ma dama leen ne leen gunge ma fii laa jëm si biñ ñëwee ba ci bunt bi laa leen fii mooy kër sëriñ moo waaw ndax dañ demoon conférence ah. jógee fa ñëw naan ndox rek hmm. ma ne leen acca leen dem leen bu génn waxuma leen sax fu ma jëm bi ñëwee ba gaari ci bunt bi nag laa leen ne fii mooy kër Serigne Mor hmm. <laughs> ñu xam ne hmm. Serigne Mor bi ma daan tudd moom fii mooy këram loolu moo am loolu moo am ci sànni waaw waaw man ñaar yoon naa la ma si gis mooy bi ngay tudd doomam bi fii ci sa kër kër ak tey waaye chaque jour conférence bu mën a def waxtaan bu mu def lu mu néew néew lu mu tuuti tuuti dana dafa tudd bala fa fu mu mën a dem dana wax sa tur sa tur yi yaakaar naa réew mi ak bitim réew ñëpp miin nañ ko ci lam ñëw yi fu mu toog dana tudd dina wax sax léegi la may nettali bi alaaj bi ngeen demee ci alaaj Abdou mu yebal leen ci moom nii mu jox faama tariqa bi. loo loolooy sabab bi sax ma gën a ñëw. wallaahi booba kii juddoo bu. waaw Aminatu mii te mu ngi ci ñaar fukki ak léegi moom ak euh, ñaar. Mm-hmm. ñett mu ngi ci vingt trois ans kon loolu yàgg na. Mm-hmm. boobu moom mii juddoo bu. Mm-hmm. Serigne Mor mii moo tudd Aminatu mii. te bi mu kii am na ren vingt trois ans. ñëw na ba sama kër gi nga wax moo tudd Aminatu mii te Aminatu mii am na 23 ans ren. ren jii la am ñaar fukki ak ñett kon du du benn fan. du ñaari fan du ñetti fan. loolu nag ñun dañ ci ñi ci des ñëpp it moo leen kenn la ci tudd mooy may sama doom ba ci Tiwaawan mooy magu kii te booba xamantee guñ baag moom ak ki ñu tuddee Alaaji Abdul Aziz ki ma tuddee Alaaji Abdul bis bi mu ko war a tuddisee ci fajar googu la ñoo ko wàkk ba xaritam la léppam la bàttalee woon ko boppam ne bu fi jógee su fekkee alaaji Abdu di dund na ko alaaji Abdu jullee su alaaji Abdu dundul moom Sëriñ Moor na ko jullee mu dem sookoon nag jullee ko denc ko moo tax keroog tuddul Abdou Aziz ki ma tuddee alaaji Abdu euh, Cheikh bi nekk euh, Sacré-Cœur sama doom boobu fekk maa ngi woon Màkka 2004 bi muy judd moom dafa ñëw ci bésu tabaski la la <laughs> ah, bésu tabaski moo doon tuddam bi mu rendee xaram dem di ko tuddi daje fa ak Sidi Ahmed si bu di Jalil si fekk Sidi Ahmed toog Sidi Ahmed tudd waaye bu ma fa fekkoon sax moom mooy tudd kon nag ñaar ñooñu ñett la ñett li ma yàlla sarax ci bant ñett ñooñu la ci tudd ñi ci des ñëpp moo leen tudd sëriñ Abdou moom radiyallaahu taala anhu ci sëriñ yi gën a baax mu njóobu aka ba moo ko ma yar dafa am benn bés ngay garaw gaa dikk mu dikk dikk di war ci kër ci waawan di dama def si yaa ci waaye gàmm dugal ay gàmmoo kër ci bay mu bii de sëriñ sëpp bu ñi ci yàlla fekk seeni nag dem bii ngay dem kër diini xaalis ko gàmm la soogee moom si boppam nag maa dem këram benn bés moom mu fekk fa am sulay ba mhm. doom doom Abdou Souley moom mu may ko yor mhm. ma doy ko mhm. ndax man na ma laa daal doy te moom du ma ko doy te te nga xam ne nag man du ma paraparaan kenn mu ni ko ah, man kat nag ku ma doy sama bàyyi wéy nga ma ah, ma ne ko de boo ma jox la ko nekk ñi ma àndal loolu neexu leen. ci yàlla mu ñu propagande ko ñu dem ci waawal si yëpp. mu mag mu mag ab da baax. ñu ko dangay ñaanal wér bi. mu bañ bañ ñu wax ko mu dàq saa loxo yi sa yëf bi kaay yow am nga wér. cam est-ce que yéen daal daaw la ma yëkkatu. yëf du ma gis la ko wax. ah waaw ma du ma du ma ma yàgg wér mën naa laa ñaan rek waaye am nga wér. cay cay cam. waaw la ko ma ne ko man ma ne ko man am naa preuve ci moom ci nit yàlla. wallaahi. te te ña ko propagande moom mi xam na leen man xam naa leen. ma tax nit ñi yàq rek ba xam nga bu dul woon nit nit nit yàlla du ko xam. du ko xam waaye bu doon koo xam ne itam dara ji rek la bëgg. danga naa dikk ñoo xam te fekk na loolu nag. wallaahi wallaahi. moo tax wax dëgg yàlla. baax baax baax nañu sëriñ de. nit ñi ñooy yàq loolu ma doon nettali nag moo tax sax sëriñ ma gën a ñoo leen baax. aleykum dafa def. waaleykum salaam bi rahmatulah aleyha faama bi bëggee jël tarixa bi. waaw daf ma ne dama bëggoon jox uh-huh. ne joxe tarixa El Hadj Abdou Aziz a ngi dund kenn mënul fexe ba ma jox la tarixa ci kaw suuf ku ko bëgg ñëwal ñu dem ba ca moom mu jox la ko wala fu mu la yebal koo ko jox la ko waaye man du ma joxe tarixa te mu ngi dund bi mu génnee àddina yëpp laa commencé joxe tarixa muy quatre-vingt-dix-huit laa commencé joxe tarixa boobu fekk na génn naa àddina ba mat at sax quatre-vingt-dix-sept ndax moom quatre-vingt-dix-sept la génn àddina bi ñëwee bunt boobu maam di wax ne fa la ko maam Ousmane di jaarale bu ma ko fa yónnee. ci bunt boobu lañ jaar. Pape Makhtar Kébé ne ma sa papa nee na nga ñëw. Mhm. man Fama Wade ak ñaari nit ñu ma àndaloon. Mhm. ñu ñëw. Mhm. Pape ne ma góor gi day léegi la dugg ci biir. mu ngi toogoon fii di la xaar. mu ne benn nga wax soxna si mu dem ba jëmmi jamono mu ñëwaat ndax yaramam moo neexut wala. nga yóbbu ko ci Serigne Mor Diop mu jox ko tarixa ma ne ko comme tudd na ci Serigne Mor rek dinaa ko def ndax Serigne Mor xam naa ko ni ma xamee Serigne am te Pomba eh, ma ne ko kon ne bu ubbee ne ko faf naa maa ngi koy yóbbu ci Serigne Mor mu jox ko tarixa ñu génn jël taxi ma ñëw fekk ko ci Medina ne ko jox ko tarixa sama soxna la waaye ci sëñ Abdou jógee ci ndigal bi lam lañ fi ñëwee jox ko tarixa bi nga xool li yàlla di def moom laa la nettali sa sëñ Abdou génn àddina bu yàgg moom mu génn àddina taxawaay bi mu ko taxawee ah loolu la gis lu ne sëriñ moom def na ko ci ci ci dëju faama wàll dafa dafa wuutee fu ñu bari man mi defal naa benn bànn ci Sénégal mhm. benn jigéen ba am gën a jàll dafa def ko dugg jabar Omar Bala mm-hmm. dafa mos dem ci Faas mm-hmm. siyaar ba noppi comme gis na euh, Omar di muy xëri ci man mm-hmm. mu ne yàlla su naa ngi daan ñaan ci barke si si yàlla si jegam si Omar Ba muy gën si moom si ndox dëgg la wan may tegtal am na lu melax ci kanamam mooy waxaat ko waaye dafa daal xam naa dee foofu ma defal ko benn bànn nag ci tariixa bi mu jox ko ku ñu wax Ndeye Mariam Ndeye Mariam Diarra bàyyi bi la maat rek nga ànd ak ay mu jël bànn bi nag dem yëpp ko fii ak si ne ko papa kii dama sama benn xaalis sori moo ko def ma bëggoon nga déglu ko nag ma ñaan ci digga su fekkee ne ma ma naa ko jël te mm-hmm. ñëpp dafa jël ñaari si yoon jamono boobu ma laa fa si yaan yi bari ci kër ñëw bi mm-hmm. dem seeti ko xamaa ko mm-hmm. eh, ci yoon bi nu dajee benn kii jox ko loxo di ko jigéen. mu mm-hmm. bañ. Mm-hmm. benn waa di ko kii ci gën a. Mm-hmm. man noonu la su ko sëñ Abdou la ñuy dem. la ñuy dem ba ci sëñ Abdou ci kanam. ak waa sëñ Mesa waay. mu nekk ko mu ne ko. nun ñi sax bu nu ko defee dañoo def waaw. te lii ñu la wax mooy dëgg. dafa araam te nun ñi bu ñu ko defee noonu ma ne ko nag. ñun de am sant ñu si nag waaye nag lépp lu ñu wax. ci hmm. téere yi. Hmm. mën naa laa xamane te sa yaay may dafa wax ni jox jigéen loxo. Hmm. li ci yàlla digle moo gën a metti ñu ñu fekk la nga toog ñu dëbb ràbb sa bopp. moom sax loolu la wax fekk dama ko ni boo demee ci taskiratul Qurtubi yi يسأل كبك كدول من صابها امرأة أجنبية حبسه الله في نار أطعامه والله الدنيا waaye sa yaw Diouf wax dëgg yàlla kii nag bokk na ci li tax sax mu gën a ñëw tey muy Aminatu mi yaa joxoon yaayam tarixa bi yaa ko tudd mu ci ñaar fukki ak ak ñett ren yaa ko tudd maa indi woon yaayam ni ma ko nettalee léegi pour sëñ Abdou jox ko tarixa bi sëñ Abdou boole ñu yebal ñi ci yow te man sëñ Abdou ma joxoon tarixa bi mu génn àddina yaa ko taxawee lu ne nga def ko jullee ko bañ denc ko mu ngi nii nag bu ko ko jox tey waaye dina fi ñëw beneen yoon damay bañ raaxaloo ci mu foog ni looloo ma indi woon beneen yoon mm-hmm. dinaa ko booleeg Mansour Guèye mii dégg ngeen bu dee bu dee fekk na ma fii ma am jot maa koy indi ni ma indee woon ndeyam mm-hmm. te boobu ma gën a ànd ak mbooloo it ñu seede ko mbooloo mi seede ko ñëpp seede ko mm-hmm. mënoon naa ko jox tarixa waaye comme yaa ngi fi ndax maa ngi koy jox ay morom waaye du ma ko ko jox mukk fekk yaa ngi fi ndax yaa ko joxoon ndeyam yaa ko tudd sama doom yëpp ku ci bëgg jox tariixa bi incha allah yal na jotaay bi yàgg ku ci bëgg a jël du ma ci ne kenn jëlal ba mu des Mouhamed mm. Mouhamed la tax ma ne ko na ko ko Cheikh Niang jox te xam nga Cheikh Niang Cheikh Niang ko yar moo ko jàngal fa la mokkalee alxuraan ko jàngal xam ba léegi mu nga fa ba jël tarixa bi ñëw ci man wax ma ko ko téye ci loxo comme nii ne ko dem ci man waaw kay magam bu jigéen sax moom it jeex na sëñ Cheikh. magam bu jigéen gis <laughs> nga. Ah. Maoy jàpp jàpp ci loxoom ba ca Cheikh ñag ne ko Mouhamed waxal la nga waxoon mu ne ma dama bëgg nga jox tari jox ma tarixa bi nag ma ne ko na mujj tey diine ji tarixa bi loo ci soxlaati bu la ko Cheikh ñag mii xamalul perte nga du man maa la koy xamal. ndax nit ñi baax ñi sant loolu dañu koy faral di def. ndax kóllëre la moom dafa am kóllëre. Eh, waajur ak seen or ormaam dafa rëy ba nga xam ne. antenne eh, yëpp dafa jafe ñu moo tax lii nit ñi baax ñu bari sax dañu koy def. Hmm. waaye ku ku fiir ci ci ci ci taay bi <laughs> moo tax nag ña ca des insha allahu gannaaw Muhammad ma nga xam ne cheikh ña nga ko jàngal ñi ci des ñëpp ku ci bëgg a jël tarixa bi danaa jàpp ci sa loxo bi fii nga jox ko ko su ma mënta ñëwee saa bu fi ñëwee ànd ak kenn muy Mansour wala ku mu mën a doon mm-hmm. maa ko yebal pour nga jox ko tarixa bi man xaw ma jàpp bàyyi te duma ko def ilaa yow li xiyamati man ma nga xamoon lu jiitu kii di judd maa toogaat nii du soppeeku ba ba may dem bàmmeel insha allahu taala du soppeeku ba may dugg bàmmeel doo ko dégg doo ko gis lu neex waaye nag mën na ko waaye doo ko gis ci man doo ko dégg ci man man de sëñ sëriñ yàlla naa nga wallaay wallaay du ma ko nox moom moom koo xam ne wax dëgg yàlla yàlla sa ormal na ko li may nettali ci sa gannaaw du ma ko nettali mu ko ci sa kanam te ñëpp xam nañ ne dëgg <laughs> ndax nettali ko ci sa kanam sax day mel ni leneen démb rek ñaar ñaari ñaari ñetti dikk nañu fi mm-hmm. te yaa boobu xaw ma di nga fi ñëw wallaay tey jii sax xalaatu ma man sax dinaa fi ñëw tey yàlla def na toog na Espagne di def conférence di la waxtaan waxtaanee di la waxtaan di waxtaan di la tudd ba mu yàgg am bi mu tasee mu am ku ñëw nuyu ma ne ma yàgg nga fee ñëw ma dina déglu waaye tey xam nga lu tax ma toog ne ko déedéet mu ne ma sëñ Mor mi nga doon tudd kon tam génnee cinquante euro jox ma ne ma maa ngi tudd naka naka Fall lay tur bi lay fàtte Fall la sant de ñu ne yaa ko jox tarixa bi yaa ko defal nga xamoon naka faal mag jaa dëkk Tëngéej waaw mag jaa dëkk Tëngéej xaaral xam naa dinaa xam turam waaye ku la sopp lool lool lool lool waaw moom daal ñu ngi lay seedeel ne ñun amuñu kenn xamuñu dara amuñu dara waaye képp koo xam ne yàlla cëral na la ci tarixa bi jàppee nañ la comme Cheikh Sidi Ahmed Chérif dañu bat bët boobu lañ koy tijaan da mooy ñu koy tijaan tabaarakallah wax dëgg yàlla de man de xaal lu baax rek ngaala ngaala faal waaw ah, kay ma ne xaaral xaaral ma xool ko ah. Ah, ngaala faal waaw ngaala faal mu ngoog ngaala faal mii la nag waaw te gis nga la ca yàlla di def ngaala faal magam bu mu tàq magam bu mbokkal benn bàyyi jabaram bu mu tàggooloon maa ko doon denc muy seeni sàll <laughs> waaw biñ tàggoowaatee la ko mag yi jëlaat moo koy denc bi may wax ak yow. doomam tey mu nga woon université. Mm. ci conférence bi ma doon def. Mm. doomu magam boobu. waaw bu set dana ma woo téléphone. est la. Ngaala Fall. sopp la lool lool. wallaay ñu wax bi ñu waxtaanee ba pare nag mu jox ma loxo ne ma xam nga lu tax ma toog mu jeex. Mm. ma ne mu ne ma aw ma sax. waaye sëñ Mor mi nga doon tudd moo tax ma toog ba mu jeex <laughs> yëkkati cinquante euro jox ma waaw loolu nag man fu ma mën a dem ci àddina ku ma xam ci yow lu baax na naa ko ku dee safaan nag sama yoon newu ci ndax maa ëpp ñëpp safaan te du ma wax sama yos kon du ma wax safaanu jàpp léegi université ñëpp seede nañ ko koo xam ne yaakaar naa ne àddina bi ñu koy tudd sax bariwul Jóob Njaga mm-hmm. Jóob Njaga daanaka laa ko waxtaanee ndax jikko yu ma yu rafet yu ma gisoon ci moom ak lu mu seqoon nag sëñ Abdou Lamine mii ma xam ci dara. Eh, nit ñi am na benn koo xam dafa di di ko laaj di ko laaj si hmm. bis ma mu ne ko diw bisu sëñ moo bi dama ko def julli juróom <laughs> loolu ko yàq rek yàq rek wallaay ñi baaxuñ ma ne ko sa yow du xam naa ko juróom fukki at te booba te booba soldi si biir bi waaye nag melagul. wallaay wallaay dëgg la de dëgg la de wallaay wallaay. waaye yàq rek yàq rek yàq yàq waaye nag man de kenn mënu ko ci man. insha taala man de feeg maa ngi dund nit mënu maa tàqale ku yàlla bi kenn mënu ko. kenn mënu ko ci kaw. waaw kon nag xam naa dañ ñuy ñaanal. waaw waaw ah def ko ci yóbbaale. ñu yóbbaale ko waaw bu ñu ñemee ba foofa. ñeme ñeme ñeme ñeme sàq waaye ñeme wu ñoo sàq mi ci sa kanam. <laughs> Ah. moom daal ñaanal ñu yàlla rek ma jox leen attaay yi ngeen yóbbaale. waaye sëriñ na ëpp na déet ñun ñoo war a joxe. ikraam day ko waaye. Ah. waaw. waaw xanaa rek sëg wilaaya daal moom mii dafay waxtaanee. déet déet waaw buñ demee. déedéet moom kañ. nañ ko def nii balaa ñoo yegg rek. waaw ah, kañ. mu déet des na ñoom ñaar des na mën naa la koy mottali kon kon Omar. yaa indi. waaw kañ man déedéet nii la kii la Omar indi Abdou sa bopp waaw kañ am aminu ku des jëlal Omar déedéet jox ko Omar am Omar caméra bi moo kii caméraman la ñu seddoo ko du <laughs> <laughs> noonu sëriñ bi am na ñaar fukki ak ñett rek te moom moo moom mii toog moo tudd kii loolu rek doy na sant yàlla ah, waaw loolu rek wallaahi loolu rek doy na man loolu rek doy na ma sëkk sëriñ waaw damay toog di leen xool ba mu yàgg ma ne ah ñii ñëpp sëriñ a leen tudd te ma sax maye naa ko sa ginnaaw. Ah. <laughs> Fatima ah. moom xam sama rab yee ma jàpp rek ma nekk France maye ko. dama ko woo sax door ko wax ne ko maye naa la. Ah, xam naa dina fi ñëw ak borom këram. bu borom këram ñëwaatee. dana fi ñëw nuyu si la bu soobee yàlla ñoom ñëpp yaa leen tudd. amiin yàlla keroog bi ma ñëwee di ko ndokkeel si ci tudd yi mu tudd sama doom ma fekk ko fii moo dugg. keroog nag jàppoon naa ko nag waaye keroog nag laa gën a téye ndax man dama ko doon ndokkeel si rek mu ne ma Chérif ma ne ko mu ne ma sa doom bu dem naa ba ca Kaaba ga tudd ñëpp ñëw seen ko ñaanal leen yàlla allahu akbar sëriñ bi loolu ku ko mën a fay looy wax loo yàlla def na am naa yu mat juróom ñaar fukki turandoo allahu akbar waaye yëpp dama koy bind ba di ak damay jëm ba aar ma suñu loolu kenn mënu ko fay. kenn mënu ko fay tuddal na la doomam sa doom ba noppi sax xamatul sax foo dëkk. wala mhm. xamatul sax kam tuddoon kan la. waaye loolu. loolu yàlla rek ko. keroog nag laa gën a ci waaw te xam ne koy àndal mu di la bàyyi xel day wéet foo xam ne nekkoo fa mu bàyyi xel sa njoboot ki bàyyi xel sa njaboot yow waxe noppi loolu nag Diop ñun daal ñu ngi lay ñaanal yàlla suñ ñaan nga xam naa ni soriwul ah, waaye ah, wallahi wa sharafil ah, bu fekkee yàlla dina dégg rek dina dund ba doyal incha allah di nga dund ba doyal ci kattanu yàlla ñu ngi koy ñaan yàlla laylan wa nahaara ni ñu koy ñaanalee Thierno Bachir noonu lañ la koy ñaanal yàlla xam na ko ndax ñun desewuñ ci kaw suuf tey ku leen def man dara rëyut ci sama bët lu dul yàlla sëriñ xam nga ko bu baax ci sama bët lu yàlla nit nu mën a toll ba àndul ak yàlla dinaa ko ormaat mm-hmm. waaye ma dara ku ku mën a doon ci kaw suuf waaye moom li ngeen fi toog léegi li ma leen daan wax yëpp gis ngeen ko lu dul charia ñoro ko lu dul charia ñoro ko te ñëpp la ni muy dundee li muy wax ci ñun ñun loolu lañ gis ci moom ñi ko sopp te duñ tiijaan sax ñoo ko fuuf ñi ko sopp te tiijaan di ko jëriñ nag wax dëgg yàlla dama naa ko rek am man wax dëgg yàlla gàmm gi di mur yi di ci def defe naa ko ci yaay si ak ñu si ndax. ja dafa ne dama bëgg nga calculer da ngeen di si gàmm gi yëpp. Mhm. wax ma ko. waaw waaye nag <laughs> kon li ci des nañu mel. dégg nga. waaye bu ko ko dambalee waa at mu ne. Mhm. dama war di ba maara wàllu paas mag loolu laa bëgg nga may ma ko. allahu akbar <laughs> gis nga. li ma doon wax léegi université mu yónnee mbaaxte mu yónnee moom laa doon wax léegi université li ma doon wax léegi ma ne leen faakihatu tulaab la ma ci gis eh, wallaay xaw ma xaw ma ibra du dégg ñaar ñi taalibe maam borom Tuubaa la ñoo ànd maa leen indaale kii moo may dawalal kële dawalal na ma léegi fukki at de fukki at kooku mu leen teelul ren jii ma yónnee 4 millions ba maa ngi seetee maa ngi dund maa ko wàllu eh, yi ñuy xool ci nitu yàlla yàlla def na ko man li may wax. am na beneen koo xam ne kii bi gàmm gi dafa dafa sàgge. Mm-hmm. moom da yónnee na ñaari tonne ceeb ak million ak ñaari ñaari téeméeri man bari naa ci ay xarit yoo xam ni ku sax doo da ngay gam ni doo ko gëm wallaay daal ñu ngi lay sant di la gërëm amina tey indi naa la beneen yoon nag xam nga ko hmm? soo fi bëggee ñëw yàlla ngay ànd ak man Mansour a ngi mm-hmm. xam nga kër gi ngeen mm-hmm. allah ah, teg naa ko ci sa loxo ni ma tegee woon yaayam ci sa loxo incha allah mm-hmm. seede lool la seede lool naa ko ñëpp it nag incha allahu taala wax dëgg yàlla yaakaar nañ ci moom luy wax dëgg yàlla Hmm. Sudan mm-hmm. hmm. ñu koy defar. daaw la bi jigéen ndax wala sa jigéen bi lu do jigéen yi do loolu ji waaye fekk na ki daaw la. ko dee ku ñu koy defal wala nga dem ci armée ko fa. ñëpp taale. parce que te keroog defal na ko yaayam ci bi koy sang. Hmm. di ko defal. boobu mu ngi koy def boo leen joxe ay loo bañ ñëwee ba ca armeel ya kazalika nit nag mënalul nit loo ko loolu li ma li ma Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum waxoon it Baye Omar ma ko nettali ba muy tudd moom mii mu nga moo ko tudd sama toog doom bi ma tuddee Serigne Babacar si yow surtout imam Moussa boobu ba ñëpp keroog yaakaar naa si yéen ñi fa nekkut bariwul Serigne Cheikh yebal Baye Omar Samba jox ko six cent mille trois cent mille yi mu ne na ma ko jox trois cent mille yi mu ne na ko jox aasi ne ko boo demee nga ne Chérif dañ doon jamante jam na ma nga joxal ma ko trois cent mille yi trois cent mille yi des nag teg ko ci loxol aasi bu ko jox Chérif ndekk aasee nga ci seen salon yooyu xaw ma ne day sol bàyyi mar fa la toog ba deux heures di xaar aasi ma ne ko waaw jox ma mu ne ma yée yow xamoo sëriñ bi bon dafa ne loxo ak loxo ma ne ko waaw kon jox ko yaayam te dem wala papam mu ne ma déedéet waxuma yaayam waxuma papam waxuma yow daf ma ne sama loxo loxol aasi <laughs> mu toog ba deux heures ba aasi door ñëw mu yëkkati enveloppe bi jox ko ne ko Serigne Cheikh sa maam moo la ko jox moo ma nettali ci gémmiñam mu ne ma maa ngi toog ma ne ma ba ma yegsee maa ngi fekk Serigne Cheikh Cheikh a ngi toog ci saal bi di ma xaar nee na ma ñëw mu ne ma Omar Samb ne ko mu ne ma naka tudd ma ma ne ko tudd nañ ba noppi mu ne ma kuñ ko tuddee ma ne ko Serigne Babacar si mu ne bettu ma woon xam naa ne nit ñi sax dañ foogoon ne man la koy tuddee waaye bettu ma woon mu ne ko kan moo tudd doom ja mu ne ko sëriñ Mor Diop mu ne ko wax naa la ne Chérif du nit ñaataa fa ne woon ci siyeen mu ne ko duñ jeex sëriñ bi loolu laa la bëggoon a wax nag looloo ma yéem doomaa laa jab du yéeg ñëpp nga foon waaye nee na yéenay samay Serigne waaye ngeen baal ma tudd doom Serigne Mor Diop laa ci wëllëranteel nee na moo gàddu doom ji jox ko sëriñ Mor Serigne Mor tudd mu ne loolu kan moo ko ñeme ci miim réew <laughs> la ko ci sëñ Cheikh ko loolu kan moo ko ñeme ci miim réew noonu naa leen shérif du nit baat boobu nag moo ma dàqal ci loo ma bàyyi woon xel mu mos a wax ci ko ndax am na ñoo xam ne complexe ak ak ak rek jaral na leen leneen man nag ah, du ma awma ci tus complexe moom awma ci dara dara dara yàlla suturaal kooku nag suñu diggante ak moom la ko wëllërante ak moom mm-hmm. ah, kii li ma wax looloo tax ma indi ko mm-hmm. moo jox ndeyam tarixa bi incha allah moo koy jox tarixa bi mm-hmm. ñi cee des it gannaaw Muhammad ku ma ci déggal laa wax jamono bii nag booy wax da ngay wax lu leer te yaakaar naa kenn teewaguma ci waaye ku ma ci déggal buy jël tarixa bi incha allah yaa ko koy jox loolu nag kollëre boo gis fas nañ kook yow. nga ñu bañ laa téye nga defal ñu ñaan déet wallaay wa sharafil Qur'an may ñu pare may ñu pare amiin yàlla. amiin. سيدنا جعلنا لكن فاتحة واحدة تكفي أرض السماوات والأرض. يعني بالفاتحة من نافذ آل يدك وقو أو يدك comme yaakaar si rajo bi def ko benn rek saa su baax. allahumma salli wa sallam ala nabiyyika wa ala alihi wa sahbihi نسألك بجدك الصلاة وجلالتها وعظمتها أن تصلي على سيدنا محمد الفاتح وعلى آله نسألك على أن صلاة وجلالنا من دعاء وشفاء ونجاة وأمانا من كل عين الرحمن الرحيم ببركتك وقدرك وجاهي وعظمتي والنور تبارك إلهي آمين